donc daañu viser jigéen ñi mais également aussi góor ñi ci lañ bokk parce que suñu waxee ne stratégie boo xam ne ah, dafa sensible au genre rek dañu yaakaar ne jigéen ñi kese la waaye ji dañ ci boole jigéen ñi ak góor ñi ñëpp ak képp koo xam ne daal yaakaar nañ ne tey mën nga am euh, disons wàllu ci ndaamaraas ñun projet bi préparé na pour gunge la te nag dañu doon inaugurer affaire bi avec la présence du DRDR bu la projet bu mel ni bu ñëwee vraiment renforcer l'existant ñun en tout cas service technique culture et de l'équipement rural dañ euh, duñ def lu dul apprécier surtout que xam nga actuellement am na lu ñu naan changement climatique donc décor bi presque mu ngi dugg ci dëkk bi donc plante la boo xamante ne dana permettre freiner changement climatique yooyu euh, donc renforcer système agricole bu producteur bi mais également yokk koom-koomam. suñu gisee suñu xoolee euh, ci ñett mayon bi ci maillon producteur. production bi il faut que vraiment ñu renforcer la capacité mooy bay baykat bi pour mu mën a xam ban jiw laa war a samp ci sama tool bi parce que yooyu moom ça compte pour vraiment booster pour ñu mun a yokk lu ñuy produire parce que Sénégal donc reconnaître nañu si vraiment suñu amee état euh, appui ci état ak partenaires yi mun nañu euh, dépasser les quatre-vingt-quatre mille